ñaari téeméeri junni ak ñaar yu taftal ñetti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ñaari parents la Doudou Ka ci loxo coordonnateur national bu parrainage bu benn Bokk Yaakaar Doudou Ka moom kot jox na candidat Benno Bokk Yaakaar bile lim boo xam ne ëpp na ñeenti yoon limu parrainage mi nga xam ne moom la code électoral bi laaj candidat yi. mooy que kilomètre laaj candidat yi nga xam ne dañoo tànn parrainage citoyen mu di na ku nekk fexe rek ba am diggante ñeenti fukki junni ak ñeent yu toftal ñaari téeméer ak fanweer ak benn signature jàpp. juróom fukki junni ak juróom ñett yu toftal juróom ñeenti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom signature yoo xam ne dañoo bawoo lu mu neew néew ci juróom ñaari région te itam région bu nekk nga fexe ba am ñaari junni signature. Au nom du président de la République, président Bokk Yaakaar, au dañ lay ca base politique am nag ca Ziguinchor nga xam ni sax ville ba ci loxo Ousmane Sonko la nekk depuis élection locale yi Doudou am na fa lu toll ci juróom fukki junni ak juróom-ñeenti signature. teew ma wuti feneen balaa may wuti sama dëkk sama dëkk laa am 46 ba pare ma dem feneen dem wuti Sénégal. coalition Benno Bokk Yaakaar nag lañu bëgg mu di am. ñetti million ci euh, signature laata ñaari fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre gi ñuy dëppmal di bés bi nga xam ne si la ñuy tëj mbirum parrainage yi